mbokkeen sonnot ci Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo mu mel ne pënd ba wureegul ci ki nga xamante ni mooy euh, Fatima jonn ak mbiri Amina moom mi nga xamante ni ñu ngi koy tuumaal euh, nii euh, moom moo fexe wala sax moom moo teg ay dilam ba xale yi di nekk si ay jafe-jafe mooy miss yi rawatina Fatima jonn ba ñu sax daal di ko violé coow la ni kur ku nekk di ci joxe sa xalaat ba miss yi nag di fële fu nekk miis miss Kédougou Ndar ba ci sax Louga ku nekk di wax li nga xamante ni dund nga ko ñi nga xamante ni yàggul dara ñoom yéen yàbbi ci mbir mi wax situation bi nga xamante ni ñoom la ñu nekkee woon fële ñu nekkoon di euh, Miss Labado waaye mbir ma nag lu bees tax moom moo ci daal di ñëwaat lan la information bi nga xamante ni Dakar Net moom la am exclusivité bi Dakar Net moom moo ko yor ni ab waay boo xamante ni dafa juge fee ni dafay jàppale xale bi te yàlla rek rek tax maanaam dafay nekk parrain wu xale bi nga xamante ni moo juddu te amagul baay wala sax xamaguñu kuy baayam moom nee weer bu jot jot dina dugal xaalis bu baree bari ngir dimbali eh, xale bu jigéen bi te bëggu cee feeñ benn yoon ndax yàlla rek eh, moom moo tax muy eh, def ñu nag jëm nañ koo jege kur xom pour xam kan la waaye nanguwul sax wane boppam nanguwul yooyu yàbb ci mbir mi waaye jàppale ni Dakarnet xam na waa ji kan la waaye waa nag mënaguñ koo wax ndax moom bëggul kenn wax ni moom moo ay bëgg taxaw taxawaayu jàppale xale bu jigéen bi di Fatima Dione information baa ngi noonu mooy lan Fatima jon am na ku ko jël en charge bëgg chaque weer di ko jox ravitaay également boo xamante ni daf ci mën a dundalatee dundal euh, euh, ki nga xamante ni mooy doomam ak njabootam yépp te du ci feeñ benn yoon di jëf ju baax a baax bu Dakar Net di rafetlu leen daa abonné seen site d'information bii di Dakar Net daara du leen rëcc ci réew